asalaamaaleykum askan maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant man Fary sa laa tudd dëkk kër sëñ Ablaye. waaw ni ñu koy dundee mooy fagaru rek ak di doxe ndigal bàyyi tere macha allah fii moom resto la place la ku fi ñëw mën ngaa dala sa xel borom resto bi jël na ay matuwaayam kenn du fi liggéey sans gants gis nga man sax damaa muur ma daan teg gërëfaas mais dama bi léegi damay muur di sellal. fii moom ku fi ñëw moom dala sa xel te ndigal rek la ñu waaw macha allah daal. waaw liggéey moom instant bi doxul moom lépp taxaw na mais xam nga day xaw a métti ngay tëj noonu bàyyi dem toog sa kër parce que weer bu dee da ngay fay luwaage du fay ndox fay courant fay fay say emploi waaw loolu moo tax ñuy liggéey. waaw ñun moom 6 heures bu jotee incha allah si kàttan suñu borom dinañ tëj dellu ci suñu kër waaw. waaw su 8 jotee ñu ubbiwaat di fi suñu wërsëg rek ñu for ko dem. ndax jamono moo toll noonu. ndax comme maanaam ñu gën a góorgóorlu rek ci set gi ak loo liggéey tamit na ko xool bu baax parce que lekk la waaw ñëpp dañoo bàyyi seen kër am na ñoo xam ne seen kër mënuñu faa nekk di lekk am na ñoo xam ne am na ñu leen togg am na ñoo xam ne amuñu toggal kon donc li koy lekk liy lekk fii na set table yi na set place bi na set yow mi koy liggéey tamit aussi na nga set loolu rek laa leen di congé waaw nay set daal. tax na Aïcha Bassène mhm. maa ngi jógee commune bu Darou Khoudoss mhm. ànd ak sama présidente commission santé Ndeye Mbaye Ndeye Ndak Mbaye mhm. Euh, avec le maire Magor kan mu débloqué somme bari jox ñu nañ def ça fait une semaine a ngi nii deux semaines moo ngi nii ñoo ngi dox si lii saa bu ñu jëndee bu jeexee toppoo nag commune bi yëpp di seddale dëkk bu nekk ñu dem dañoo bëri ay dëkk nañ am nañ 68 villages ak plus de 100 hameaux mais fu nekk dem nañ fa ak li nga xam te ne daal moom la ñu am ci suñu doole jox leen ko sensibiliser leen jox leen produit wax leen nan lañ koy utiliser ba pare doog a continuer waat fi mu nekk dañoo jeexal tey ñu dellusiwaat encore pour utiwaat te xam naa dinañ dellusiwaat sax. xanaa nag gën a taxawaat bu dëgër gën a fagaruwaat xam ne lii mu wax du loo xamante ne lu ñuy foowee la parce que président bu taxawee ak ku ko gis démb ni mu taxawee ak ni mu waxee nga xam ne lii nii lu lu ko soxal la. ni mu taxawee ak ni mu waxee rek ku ko soxool di nga xam ne kii li muy wax nii lu ko soxal la lu ko ñor la te bëgg na tamit askan wi taxaw ci li nga xamante ne moom la wax ñu nag moom commune Darou Khoudoss moom fekk nañu ñu taxaw ci bu yàgg ak suñu maire lu ak suñu maire Magor Kane ak commission santé ñu ànd ak euh, suñu groupe daal di def li ñu man jàkka yëpp fuñ foo xam ne nit ñi dañ fa daan daje avant ñuy wax ne na nit ñi toog ci kër ga ak école yi ak poste de santé case de santé yi nekk si suñu zone yëpp ku nekk daal ñëw nañ la jox la li nga xam moom lañ la jàppalee waaw pour xeex jàngoro ji waaw. tudd Ndeye Ndaak Mbaye di conseillère municipal euh, dëkk commune bu Daaru Xuddoos di présidente commission santé xam ni mbir moo xam ni doy na bu nu xoolee ci semaine ay semaine la jóge Chine atterri romb ay dëkk ak si Sénégal am vitesse de transmission bu gaaw macha allah ah ñu ànd ak nag maire bu taxaw ñu koy wax monsieur le maire Magor kan muy xaleel am yar am teggin gëm askanam nag xam ne ñoo ko fal te am na lu ko war ci ñoom mu ne ah comme mbir ñëw na dal na ci sama kaw dal ci sama kaw askan xaaruma kenn damay jóg samay moyens de bord ma jóg ànd ak équipe municipale ma àndal. daw ànd ak sama askan ñu xeex ngir ñu daan coronavirus bi vraiment booba tey ëpp na deux semaine ci lañ nekk. te somme bi bare somme bi bare na parce que dañuy ñëw jënd parce que ñun suñu commune nous sommes une commune rurale de 68 villages officiels et de plus de 100 hameaux ñu ngi ci troisième semaine presque ñu at dana def zone Darou Khoudoss def na fa 33 sites def nañ ay mosquée grande mosquée ñu jàkk yeeg jumaa yi def marché yi def atelier mécanicien yi def boutique yi. bi ñu jógee suñu zone Daaru Xuddus bi chef lieu dañ dem zone ñaay ratissé ñu ngi ko tàmbalee Saaw ba Kër Paata Ndiaye plus de trente village yoo xam ni ay juma ak ay jàkk ak ay marché bi ñu jógee foofu ñu dem une troisième zone bi nga xam mooy la dernière zone de notre commune muy zone xonq yooyu ñu tàmbalee ko kër Aala Gay ba xonq yooyu Fass Booy Jogo foofu yëpp def nañ ko tey lu ñu dese tey boo yoo gisee ni ñu dellusiwaat suñu mbokk pël yi nga xam dañu ànd ak ñun di liggéey dëkk ci littoral bi moom la ñu bëgg attaqué suba incha allah ak gannaaw mbeteet ak jogomaay ca gannaaw MDL fa la ñu jëm incha leen xamal ni daal monsieur le maire Magor Kane ak équipe municipale am taxaw nañu temm ànd ak président de la république ci xeex bi nga xam ne mooy daan corona waaw euh, euh, loolu. waaw loolu nu ñu koy dundee dañ koy rafetlu. parce que ku ne xam na ne boobu ba tey depuis ñu ni la survenance de cette pandémie président de la république dafa jël ay matuwaay yu taxaw ñu koy wax des mesures de bon sens ay dogal yoo xam ne xel daf ko war a mën nangu parce que Chine bi ñu xoolee xam ni bi leen affaire bi attaqué sonal leen ne nit ñi toog seen kër bi nit ñi toogee seen kër lañu gis ne affaire bi am na évolution kon dañ ci ànd ak président de la république xam ne booba tey moom tam mi ngi taxaw di rayante ngir rek askan wi mën a mucc ñu ngi koy sant vraiment di ko gërëm di wax nag ne ñëpp toog seen kër ndax boo xoolee discours ni mu daan présenté discours ak biig ni mu defee discours bi nga xam ne population bi ñor na ko. mais yaay booy na ko la ñuy fa la ñuy laajte. Mhm. Euh, ci bëri seen loxo jëlul mhm. loolu. moo tax boo gisee ci mille milliards yi mu wax ni moom lay ressources yooyu la am pour daan corona bi mi ngi ci am na ci benn somme bu muy wax ni moom la bëgg jàppale askan wi. loolu aussi dañ koy rafetlu bu baax a baax ndax ku ne xam ne Sénégal bari na ñoo xam ne seen loxo jot seen gannaaw bu ñu xëyee toog seen kër bëgg guddi jot boo moytul bu ñu añee dund reer donc kon loolu ñu tam aussi dañ koy rafetlu di ñaan aussi bu ñëwee na egg ci askan wi loolu rek ci vraiment àgg ci askan wi. man Cheikh Touba laa tudd bon maa ngi liggéey fii restaurant de Délices. waaw ñëpp xam nañ ne feebar bi tamit bon ñëpp la laal bon bu mu laal tamit laal na ci secteur tourisme bi laal na restauration yi laal na hôtellerie bi bon laal na fépp daal koo tamit comme ni mu doon doxee bu njëkk ak léegi tamit wax dëgg yàlla wàññeeku na waa xam nga ñun ñu koy sentir. même boo demee si dëkk bi tamit ak ñu doon jaay ñëpp wax dëgg yàlla njaay mi wàññeeku na melul comme bu njëkk parce que tamit li doon gën a yokk koom-koom bi gis nga bi affaire bi feebar bi yegg si réew mi bon doomu réewu France yëpp daanaka màcc bépp ñibbi nañu waaw ñu nekkoon extérieur yëpp muy américains yi muy tubaab muy français yi ku si nekk dellu nga sa sa dellu nga sa réew bon ñun ñu fii rek comme que tamit bon amaguñu benn mesure te xamaguñu tamit bon fu ñu mujj bon mënaguñu. xam am benn décision bu ñu jël daanaka bon du ñuy fortaatu jaay ndànk-ndànk rek bon ba ba xam ëllëg fi wàll te du mu jëy gëtam waaye tamit teew tamit dañu ànd gëm yàlla rek xëy tamit bi dafa ñëw waaye tamit ñu ñaan yàlla tamit bon nu mu gën a gaay tamit feeb bi du dem ñu delluwaat seen activité teew tamit ñu ngi jël suñuy matuwaay saa yoo dugg si restaurant bi tamit dañu jox loo xamante ne ay antiseptique nga raxasu sooy génn tamit ñu jox ay antiseptique nga ah, tamit nga raxasu nga dem xam pour mun a xeex jàngoro bi waaw ñu ngi ñaanal ñu yëpp nag comme li président digle ku nekk na ngi jël ay matuwaayam mu ne xam ku nekk toog këram ñu mun a xeexee jàngoro bi ku nekk tamit respecté les mesures d'hygiène bi président bi wax bu ñu ko defee rek bon yàlla mën nañoo dimbali jàngoro bi jóge fi si kàttanu boroomam. waaw ah, bon gaa métti na waaye tamit dañu nangu tamit ndogal la boo xam ne si président bi la jógee kenn mënu si bi mu waxee tamit il faut ñu ànd ak moom. xam nga si si lu mu wax parce que président mënul wax kilifa yi wax tamit ñu mën a wax loolu mënul nekk il faut ñu nangu ndogal bi gaa ku fa amoon na fi am na ñoo xam ne fekke wuñ ko mais ñun ñu ko fekke ah, loo xam ne lu bees si ñun man fekkoon naa fi kuul fa 88 89 dund nañ ko si jàmm affaire bi jeex parce que parce que lii bu ñu ko nangul tamit ëllëg def si ay confinement ku nekk toog këram te boobaa lay gën a metti kon boobu ñu njëkkee ko lii xeex ko xeex feebar bi mu dem moo gën tamit bon ñu ñu bañ a lii dañ koy nangu rek ba keroog yàlla yàlla di ko te teggi amul benn waaw fan yi tamit bon ñu ngi ja ñu daal mu ngi dox ndànk-ndànk rek xam nga molo molo voilà. maladie et, et les consignes qui ont été données par le président enfin, nous porte un gros gros préjudice parce qu'on est dans le secteur euh, de la restauration qui est touché de plein fouet mais bon. Après, euh, on va penser à traverser cette période difficile et après reprendre nos activités normalement. Parce que nous, notre, euh, en fait, la grosse partie euh, de notre euh, travail, c'est le soir, à partir de 20h, où les gens sortent, euh, se divertissent. Comme il n'y a que les restaurants à Thiès, bon, ça nous fait travailler un petit peu plus la soirée que dans la journée. Et voilà, quoi, on est doublement touché par ça. Euh, lii gel de main la pour désinfecter loxo yi gel de main pour désinfecter loxo yi donc ñu ko utiliser le plus souvent wala ñuy raxasu ak saabu di takk masque pour que waaw fekkoon na ñu ko utiliser auparavant donc même maladie bi bu amul sax dañ ko war di utiliser voilà donc ça fait partie de la propreté ngeen di ko utiliser avant après maladie bi c'est c'est très important donc pour sénégalais yi pour ñëpp pour limiter feebar yi même bu dul coronavirus sax mu limiter yeneen feebar yi donc di raxasu di utiliser gel de gel antiseptique yi donc c'est important pour propreté tout le monde jàmm ñëw Sénégal jëm kanam ñëpp delluwaat seen activité